c'est parce que dañu ñëw euh, wuyu si li nga Abdou Mounaf di président association des parents d'élèves woté Romi Domi commune de nous Derklé ñun nak comme fi nous ah DG Port pour la donc mouvement bi dem euh, répondre ñu ñu contribution dañu pour nettoyer parce que semaine dernière je rappelle que la semaine dernière nous avons fait un désherbage désherbage est dafa des ba donc nous continuons continuer désherbage nettoyer l'école de fond en comble salle de classe Et ensuite demain nous allons appeler à appeler waa 3D euh, pour euh, euh, planter ay arbres ak yooyu laal ci biir ci biir école bi. ñun e nettoyer les écoles les les les les édifices publics mosquées yi ak yooyu yëpp yàgg nañu sur le terrain parce que génération Sénégal émergent dafa nekk si trois axes yoo xam ne moom lay liggéeyee muy bu bi muy éducation formation beneen bi di entrepreneuriat beneen bu ci mujj bi muy santé sport ak environnement tey nag volet environnement boobu moo ñu moo tax ñu ñëw fii donc on a vu la GSE technique dafa benn pàcc la ci biir GSE boo xam ne moom mbirum nettoiement rek moom Dal donc école bi bëgg nañu euh, contribution pour pandémie bi dinañ leen jox gel dinañ leen jox ay masque ay lavoir ak école remettre officiellement association des parents d'élèves bi nga pour que et je voudrais rappeler que école bi bo salle de classe 19 salles de classe ñanti salle rek lañ ko karale lañ ci karale ñant yoy ñun GSE ñoo ko def te GSE technique ñoko def on a des des ouvriers yo xamné ne il suffit que ñu jox leen les moyens rek ñu ñu déroulé donc ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñaan euh, yi commune de Dieuppeul Derklé vraiment su féké ni ki ñu doon l'opportunité pour que ñun ñu ñëw def parce que on a les moyens de le faire té bëgg nañu def mais si on nous empêche de faire aussi lolu tamit c'est pas bien waaw journée li ko taw li ko waral tay moy que ñun euh, nous avons waral l'école APE euh, on voit que le maire l'église l'église la croix de Bertel, nous avons appelé l'école nous faisons là dans le dans la simplicité tant bien que mal acceptable mais on s'est dit pourquoi ne pas nous tax bu ñu askan école

poudre ko range wa table yoo xamé mën nañ ko range range ko yu bax ñu génne ko di af appel nak ci à la communauté ñu nekk ci kasso déclé nek ci kasso doomu de kasso déclé ñu dimbali ñu parce que am nañ déficit bu 150 cinquante table banc pour combler au minimum le déficit qui nous avons le maire ils a ils a promis des tables bancs à réparer et des tables neuves mais du doy parce que day à chaque année bu ñu ubbi école

parce que lépp def dañ koy ànd ak suñu partenaire premièrement le maire ak nos partenaires sociaux waaw moo tax lépp. bi ñu nekk lan ngeen xalaatee jàppale élèves yi ak communauté bi ci ouverture yi ñu ñëw. élèves yi ñun déjà rek on a prévu que ala ci buddi bi booy dugg rek ku ñu yore doo ma tef dëgg da xas sa loxo di nga di nga di nga di nga di nga def produit gel nañ jox masque suñu yéene la bu ñu ko amee ni nga def suñu yéene la nga am masque am produit gel am am am rax sa loxo classe bi nag. nañ fa def nañ def benn lavoir ak le laser qu'il y a te xam nga école bu am plus que 1000 élèves masque bi war na doy pour yi war na doy moo tax loolu di ko lancer encore communauté bi nañ jàpp parce que seen ay doole fene wala seen ay set bu ci jàppale euh, kenn ñaanu ko yàlla yàlla bu am moo tax ñuy laaj en comité en masque en polygel et tout ça tout ce que ça suit pour xale yi au moins ñoom ñu wóolu ni ñoom am nañu le minimum bu ñu dugg ci école bi